mu mel ni ak contexte bi nga xam ne moom la mel actuellement des fois ñi ngi naan peut-être amatuñu confiance ci li nga xam ne mooy centrale syndicale yi ñii ñu ngi naan manque d'information ñii ne manque d'irrégularité la nan lañ ko mën a jàngee ce taux de participation bi nga xam ne c'est très faible moom la jàpp cette année. taux d'abstention bi mën nañu ko effectivement taux d'abstention bi dafa faible lool par rapport même à mhm. taux d'abstention sur 31 000 316 000 inscrits. inscrits bu ñu demee ci comme calcule yi amagul. mais bu ñu demee ci ci ci calcul yi ba xam nombre de suffrage exprimé bi foofu di nga xam ni taux d'abstention bi wàcc na lool. Mm-hmm. ñu constaté que nag ci terrain bi li ko li koy waral moo di par d'abord organisation ni ñu organiser élection yi. parce que yaa dafa am comité électoral boo xam ne sur le plan national dirigé par le ministère du travail central yëpp représenté wu fa donc ci processus bi début processus bi lu ca la manquement yi commencé ndax ci début processus bi dafa am article boo xam ne léegi Ece Diallo doon na ko wax ci nasaraan dafa am benn text boo xam ne ministère bi daf ko génne muy euh, mu wone ni élection yi nii la war tëdde ni ñu tëralee élection yi est-ce que respecté nañ ko d'abord ci commencé ci inscription yi mbind mi d'abord parce que dañu ni ah ñoom inspecteur du travail ñoo war a liggéey loo xam ni dañuy dem ci entreprise yi insister forcer leen pour ñu bind liggéeykat yi nga xamee ni ñoo nekk ci entreprise yi mu am yenn entreprise yoo xamee ni defuñu liggéey bi nu mu waree parce que ragal nañu déclarer nombre liggéeykat yi nga xam ne moo nekk ci am nekk ci bi ñun comprendre nañ ko parce que pour ñoom bu ñu leen xasee ba déclarer rek ñu dana war figurer ci IPRES figurer ci caisse de sécurité sociale. kon problème bi ci privé bi la gën a jógee que public bi. public bi euh, dinaa ci ñëw ndax public bi yoonam nekku ci. Hmm. ministre parce que public bi bu dee bu dee ci ci ci ministère yi administration ñooñu ñooy joxe seen liste amul problème. Hmm. bu dee ñun jàngalekat yi ci Mirador ba. la ñu kii ndax ñun jàngalekat yi def nañu élection boobu élection yooyu jeex dinaa ci dellu si waat mhm. mais privé bi chef d'entreprise yi ak DRH yi ñoo war a bind nombre bi ñoo war a respecter nombre bi nga xam ne moo nekk ci entreprise xëy na ragal a tax mhm. am na ñoo xam ne dañoo ragal euh, parce que la ñu war a bind tey jii boo nekk ci entreprise bu am mille personnes boo gi boo demee ca inscription ba ñoom dañuy duñu bind mille personnes xam nga loolu jaaduwul mhm. donc yaa ngi sacrifier travailleur bi nga xam ne moo nekk ci entreprise boobu parce que dafa am droit de vote nga sacrifier ko benn ngoog muy processus bi dès le début période contentieuse bi ñëw ñun central ñun Santès FC authentique ñu def tout wane ni am na ay manquement ci inscription yi ñu delluwaat ñun ci entreprise yi xaaruñu xaaruñu inspecteurs yi de ñun dañu mujj a dellu ci entreprise yi di forcer entreprise pour ñu bind boo bañee ñu woo inspection mais nun man ñu dama loxo chef d' entreprise ko par force da ngay bind kooku rôlu inspecteur du travail la mhm. donc am na inspecteur du travail nag ñu def seen liggéey nu mu waree mhm. waaw mais am na inspecteur du travail yoo xam ne dañu seetaan entrepre entre chef d' entreprise bi mu def lu ko neex. Mhm. benn boobu dañ ko dénoncé. benn ponk la benn ponk la bu ñu dénoncé. Mhm. ñu dem ñëw ci période ni ma leen ko wax après période contentieuse. communication bi nga xam ne moo war a am ci élection yi comme ni ñu koy defee ci élection présidentielle wala élection moo amul liggéeykat bi communiqué wuñu normalement ministère la commité électoral. national li mu waroon def moo di communiquer jël spot yu bëri yóbbu ko ci télé yi comme ni ñu ko doon defee. bu ko defee nit ñi mën a xam lan mooy intérêt élection bi. parce que gis nañ ne loolu manqué na bu baax a baax. wàllu communication bi dafa manqué bu baax boo seetlee ñoom dañ ko def ci ay këyit ay këyit lañ ko jox di ko distribuer. Mhm. du noonu da ngay expliquer élection yi enjeu yi lu tax élection yooyu am benn sortie laa gis ministre du travail def ko. gis aussi benn sortie boo xamee ni moom la la la responsable des chargé des élections def ko muy l'inspecteur Fall mhm. du noonu parce que dañu war expliquer nit ñi lan mooy élection lan moo njariñu élection élection yooyu bu paree lan la ci travailleur bi mën a am mhm. loolu manqué na muy communication mhm. ñu créer nañu seen comité seen comité électoral national mais comité électoral national processus bi yëpp la war bokk les membres du comité électoral processus bi yëpp ba fin bi daf ci war a bokk. Mhm. mais dafa am quelque réunions yu ñu def def deux séminaires ou trois je ne pas. Mhm. bon ñoom si seen biir la comité ad bi. Mhm. loo xam ne dañ ko war a wàcce génne ko ci communication comme yéen ñi nga xam ne vous êtes des des acteurs de la communication. ñu ñëw ci yéen. expliquer nit ñi nit ñi mën ko comprendre. beneen manquement ngi noonu. nga ñëw ci élection wax naa la ci mbindu ba am na ko quoi. Mhm. waaw mais bu amee ko quoi ci mbindu ba dafay feeñ ci jour élection bi. dafay ñëw ci jour élection bi. jour élection bi da ngay dem dans une entreprise comme ni ko EG Diallo waxee. Mhm. bind ñu ne bind nañu mille personnes. Mhm. nga dem ci entreprise ba nga dem ca ca liste ya génn nañu déjà ay six cent personnes wala trois wala wala plus. au niveau des entreprises. au niveau des entreprises ça c'est pas c'est pas le travail du du du. du chef d'entreprise ça c'est c'est la commission ad hoc mm-hmm. bi nga xamee ni moo war valider liste bi nga xamee ni moo war a dem ci euh, bureau bureau bureau électoral parce que le jour des élections liste yi ma ngay jóge préfecture ñëw ci lieu lieu de vote bi mm-hmm. ci lieu de vote bi ñun ci la ñu constaté ni beaucoup du ñun rek c'est général beaucoup de travailleurs ne figurent pas sur les listes alors qu'ils étaient inscrits. Mhm. ñooñu fu ñu leen dugal. te da ngeen jàpp ne travailleurs yooyu tey jii nii mënoon nañ nekk ñoo xam ne des éléments yoo xam mën na ñëw soutenir li nga xam ne mooy la. CNDS-FCA mais travailleurs yooyu sax dañu woon dañu dañu ils mhm. dañu pare woon pour voter da ngay gis travailleur bu jooy parce que du gis du gis turam. Mhm. te moom dafa bëgg a voter il faut ñu may ko droit de vote. mu voter ki mu bëgg a voter mu voter ko. surtout dans le secteur privé problème. secteur public ñu ngi déjà sur les listes nag ci mirador mhm. mais secteur privé boobu la ñu suuxal te xamuñu lu tax loolu c'est pas bon mhm. parce que secteur privé boobu la problème convention yi nekk ñun jàngalekat bi amuñu problème convention mhm. li ñu amoon moo di ay avancement ay retard te loolu lu ci ëpp réglé nañ ko mais secteur privé bi bi nga xamee ni dund bi cher na du euh, mu tuddee salaire yi suivre. ñëwul ñëwul. Mhm. salaire bi wàcc na. les licenciements abusifs aussi. li licenciement waxuma loolu convention yi nga xam ne moo daté da boo booba suñuy maam judduwuñu. Mhm. lañu convention yooyu la ñu bàyyi ba léegi mu nekk ci ci ci code du travail te donc dañu war réformer code du travail bi. Mhm. donc travailleur bi boo seetloo élection bi. travailleur bi nekk ci entreprise bi gis ci boppam de. dëgg la parce que ñi dooleel centrale yii ñuy wax. li ñu wax ci rajo bi parce que rien n'est définitif mhm. central ñu ni ñeenti central yi ñoo génn mhm. central yooyu depuis trois mandats ñu fi ah. depuis trois mandats foofu sax te te te te liggéeykat bi ba léegi gisagul boppam. foofu sax la ñuy jëm parce que ni nga ko wax mooy centrale yu yu mag a mag yi te dañoo gis ne ba tey ak élection bi nii tendance bi ñoom ñoo ñoom la ñoom la ñoom la ñoom la génne favori ba tey. waaw ñoom la génne favori xam nga lu tax. Mhm. dañu am ñoom dañu am ay faible. yoo xam ministère bi dafa faible. Mmh. ministère du travail ñoom lay interpeller directement centrale boo xamee ni yow ku mel ni centrale moo di Guros la synthèse moi je n'ai rien à leur reprocher aw ma dara lu ma leen di reprocher mmh. parce que ña nekk yëpp dañu affilié mmh. mais boo ñëwee ci yeneen centrale yi nga xam ne ñoom la ñuy wax ñetti central yu kii tey boo ñëwee CNTS FC bi coordination des travailleurs bi Cheikh Diop jiite mais dafa dafa signé xaw ma nuñ koy waxee xaw ma nu mu signé loolu xaw ma contrat la je quoi moom la signé ak waa waa SAEMS waa SAEMS bokkuñu ci élection yi ñoom bokkuñu ci centrale yooyu. syndicat enseignant ñoom syndicat enseignant la yoo xam ne autonome la ñu ñoom dañoo dem def seen élection de représentativité muy professeurs yi. Mm-hmm. ñoom ñu génn en tête. Mm-hmm. ki seen sa topp ci ki seen sa authentique topp ci xam nga loolu leer na élection yooyu mm-hmm. yow nga ne ñooñu comme ils sont des milliers et des milliers naa dem si ak ñoom ay convention ay convention wala contrat boo xamee ni donnant donnant la mais est-ce que dinañ ko mën a bañ tamit ci contexte bi nga xam ne moom ngeen nekk loolu existé wul mënul nekk Mhm. chaque ku ne libre nga dem voté ji ñoom libre nañu. ñu mhm. dem voté ji mais amuñu droit. Mhm. di di def campagne ak central bi ànd ak central boobu. di campagne di donner ay di joxe ay consigne de vote loolu du droit. loolu da ngay fausser le jeu démocratique. da nga koy fausser parce que soo joxee consigne de vote ni man bokkuma ci central bi mais ñoom laa bëgg ñu ngeen voteel ko. te moment bi ngay grève centrale boobu taxawul jàppale la ça pose problème. muy au niveau du CUSEMS e au niveau de de de Mademba Sow. Mm-hmm. Mademba Sow quand même euh, ñii dañoo yàgg. génn na ni moom moo jël premier actuellement. waaw xam nga loolu xëccoo Mademba Sow. nee na moom balaa ngay jël premier doo xaar ba ba commission bi réunir. Mm-hmm. ba wala ni yaa jël wala jëluloo. Mm-hmm. mais xëccoo boobu ci entre eux pourquoi. les premier deuxième saa na xoolal jariñul dara xam nga lan la nit ñi bëgg travailleur bi dañu bëgg gis seen bopp. ci li nga xam ne moom la ñu ñax seen salaire dellu si convention yi la ñu bëgg ñu changer ko salaire yu yokku dee nañu dàq yi bare na licenciement abusif yi bare na dund bi metti na travailleur bi amul salaire da li ñu war a xeex moo di travailleur bi nan la ñuy def ba travailleur bi mën a retrouver sa dignité malheureusement ñi fi nekk seen poste lañ fi nekk la parce que boo taxawee nga ne nit kaay jàppale ma les subventions dañuy ñëw bu subvention yi ñëwee six cent millions ñu seet ko ça c'est ça c'est une élection non je suis désolé c'est pas démocratique loolu mënul nekk démocratique ba pare résultat ba du fiable mhm. parce que élection la boo xam ne élection pratiquement pour secteur privé la mhm. ak tuuti secteur public mais bu fekkee ni secteur privé bi da nga ko xañ ëllëg li mu war a am mhm. secteur public bi demain ñoom voté nañu dañuy dem seen yoon bu travailleur bi nekk secteur privé amee problème bi ñooñu ñooy ñëw di ko régler ñun ñii ñooy ñëw di ko régler mm-hmm. donc am na loo xamee ni manquement la dafa jaaduwul ca démocratique bu amee da ngay bàyyi ku ne dem ak sa chance mm-hmm. boo demee ak sa charge lu la yàlla may nga xam ne daf la ko jox. li nga génne ci irrégularité bëri mais bu ñu déggee de l'autre côté c'est-à-dire l'inspection du travail ak quelques vice-présidents yi nga xam ne ñu ngi ci commission nee nañ l'élection s'est très bien passée donc lan la ñu mën jàpp ci loolu noonu. l'élection s'est bien passée à part quelques cas. élection bi mhm. mhm. mhm. ne sommes pas des nihilistes. élection bi am nañ ko dans la sérénité. ministère jaajëfal nañ leen foofu parce que xuloo amul xeex amul mais dafa manquement élection bi ni ko war a defee normalement moo amul jeu démocratique bi la ñu faussé parce que ku nit ci nekk dañ la war a may chance yow nga dem mais bu fekkee kii dafay da nga ar yor nga jënd popeline ñambaas ko. Mhm. bu la neexee xotti popeline bi sànni. <laughs> loolu du ma ko waxee du ma ko dégg ndax olof la. <laughs> dama ne boo jëlee sër. waaw nga wut sër bu gàtt. man jigéen la. xam nga pour mu pour mu yegg si ci sa kaw. damay mhm. wut beneen beneen kii ma bind ma ma yokk ko ci. dëgg la ma ñaawaat loolu mooy mhm. ñambaas. moo am ci ñii central yi may wax. dëgg la Cusems. bu Dame Mbodj mosul bokk ci benn central. dafa dem ànd ak waa waa waa CSA di wër di joxe ay consigne de vote CUSEMS beneen bi bokkul woon ci centralu euh, Mademba Sock dernier moment à moins de d'une semaine des élections la dem tax taxu foofu di joxe ay consigne de vote ñu noué des alliances ñu noué ay mm. alliance yoo xam ne ñooñ bu ñu paree dañuy delluwaat ci jàngale de ñu ngi ca créé bàyyi fi travailleur bi nekk fii di di di di souffrir loolu jaaduwul. loolu dañ koy dénoncé waxuñu ni. Mhm. travail bi amul droit voté. képp koo xam ni liggéeykat nga te nga am salaire bulletin de salaire am nga droit voté. Mhm. mais far bi ba mu fës. Mhm. loolu la ñu dénoncé. loolu ngeen dénoncé. ñun loolu lañ dénoncé parce que ñii di wax ñoo ñoo ñoo jël peeg ñoo jël deux. bon. lan moo leen jël loppee wala de. nañ xaar ba résultat yi génn ñu doon xam Giro na taxaw moom ko suprématie kenn contesté wu ko. synthèse. synthèse du ma ko contesté fa laa jóge mhm. xam naa suprématie Giro. Mhm. mais ñeneen ñi ci ñambaas ñooñu dañ leen yokkal ay jàngalekat ñu ñëw mais bu ñu bàyyi woon ak ñoom ñu tëral leen ci ci <laughs> <laughs> bu leen bàyyiwoon noonu ngeen tëralee ci télé bi mhm. xam ngeen yéen télé yi ngeen yor vous êtes des des des des agents de la communication. la synthèse est authentique parce que man dama gérer cadre unitaire. cette cette la synthèse est authentique da ngeen dégg partout ñu ni dafa def benn percée bu considérable mhm. ah on gagne ici à Dakar on a 9 pour cent à Dakar. Mhm. ñu am 18 pour cent à Pikine. am 6 pour cent à à à mhm. am ay ay cinq pour cent ay ay 4 euh, pour cent ci yeneen yi. am yeneen ay 6 pour cent. Mhm. bu ñu ko dajalee ñu gérer encore le secteur stratégique du pétrole. et gaz l'énergie l'énergie xoolal noo ko grave tey ñun bu ñu neexee nañu nañu seetaat ñu def lu lu jaaduwul bu ñu neexee léegi taxawal dëkk réew mi ndax bu pétrole ak gaz amul c'est fini. xam ngeen ni Cheikh Diop moo yore woon pétrole et gaz. mais est yooyu noonu espérer ngeen gis ko ci li nga xam ne mooy élection yi nga xam ne moom la ñu. génn ñoo voté 100 pour cent secteur yooyu dañu voté 100 pour cent muy mine gaz hôtellerie partout ñoo leen gañ. Mhm. ci dans damak yi moo di mais di moo di supermarché yi casino yi on a battus partout. Mhm. voilà ñoom ñu daw jëli jàngalekat yi pour mu dooleel leen <laughs> ñun loolu loolu mënuñu di jàng man jàngalekat laa. dëgg la. mais man tey bu ma woowoon jàngalekat yi man dama yaakaar ni man muy jàngalekat tey bu ñu doon supporter man la ñu waroon supporter mais lan laa leen def man ma duñ ma supporter waaw mais ce sont des alliances yoo xam ne mën nañ ko nuyu non c'est des alliances contre nature mhm. je suis pas d'accord parce que ñooñu bu ñu paree dañuy dem seen yoon dootuñu toog ci central yooyu di wax defoon nañ ko 2017 mhm. dañu dañu dañu defoon ay alliance est que continuer ñun dugg ci central yooyu quand Mhm. il faut ñu revoir ministère de du du travail laay waxal. Mhm. ñoom nañu xoolaat mbir mi. am na loo xam ne euh, le public est en de sacrifier. Mhm. le secteur privé le secteur privé. ñun ñi nga ñun ñi nekk ci public bi. ñu ngi sacrifier secteur privé parce que secteur privé moo am problème. ñun suñuy salaire yokk nañ ko. dëgg la ñun yokk nañ suñu salaire. waaye ñoom ñi nga xam na ne ay miettes la ñu yokk. wax dëgg yàlla dañu war am ñu leen taxawal nag xeexal leen. Mhm. est-ce que sax foofu noonu cest est-ce que duñu ñëwaat foofu est-ce que tamit le secteur privé nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ay coono coono yi tey boo jëlee ci la gën a ci la gën a bëri est-ce que ñoom tamit tey jii désavoué ñu centrale yi. Mhm. ba seetloo da ngay ñëw di wax ñun la ñoom fatewuñu. da ngay ñëw dans un bureau de vote sur sept mille inscrits quarante ay vote. Mhm. moo di yéen ñun bëggatuñ leen. ñun ñoo war xoolaat suñu bopp ñun central ñun ñoo war xoolaat suñu bopp fexe nan la liggéeykat yooyu nekk ci secteur privé mën a gis seen bopp ci li ñuy liggéey. est ñoom ni ñu defee actuellement est-ce que favoriser li nga xam ne mooy la vieille garde comme ni ñu koy waxee. mais dafa fa déggoo sas ak yooyu noonu. vieille kenn favoriser wu yi ñoo leen favoriser <laughs> kenn favoriser wu leen. Hmm. buñ ñu bàyyi woon ak ñoom. Hmm. ñoom ñu dem ak ñun secteur privé kese. Hmm. ah su ñu ko waxati de. yéen leen man yéen ëpp doole moo leen mën foofu parce que fii Dakar dañoo tiit parce que ils ont dit na ñun fi ñu jaar ma ni dara le travail liggéey rek mooy fay. ñun parce que ñun dañ fi toogal ñoom ku ñu dàq ci ñun ngay ñëw lu sax doo dem ci ñoom ci ñun ñii ngay ñëw ñun ñoo la yóbbu inspection du travail ñooy yóbbu tribunal du travail barki Dembo Ndiaye am hôtel bii nga xam ne mooy teeru bi. ak waa Sojec. dañu dàq deux trois cent vingt six travailleurs. Mhm. ñu dàq bokk bokkuñu woon ci ñun ci beneen central yii gagné lañ bokkoon mais ci ñun la ñu ñëw ñu xeex ak xeexal leen dem ak ñoom tribunal gagné leen ba travailleur yi jot seen seen alal bi ñu leen yoroon. Mhm. waaw mais loolu mooy liggéey mais daf jàppale ni ngeen koy defee noonu la ko ñeneen ñi di defee aussi jàppuñu tous buñ ko defoon travailleur dañuy voté en masse. Mhm. buñ ko defoon. Mhm. taux d'abstention bi du du faible nii nañu waxante te ki la ki la yor pendant dix ans avancé woo ba léegi. sa salaire dara yokkuwu kooku lan la la liggéeya ñoom ñoo war a toog xeex convention bi ak état bi dóor seen taw xam nga lan lañ lan lañ bëgg bon seen poste yi mais y a quelques y a yoo xam ne les centrales syndicales aussi gagné nañ ko ci li nga xam ne mooy xeexub salaire yi ci xeexub retraité yi mais xeexub salaire d'accord naa mhm. ñun ñëpp ko xeexandoo ñoom xeexuñu ko de mhm. ñëpp ko xeexandoo mais yow yow bu fekkee da am salaire boo xam ne cent mille la ñu yokkal la huit pour cent. Mhm. ñaata lañ la yokkal. yokkaluñ la dara. xam ah, nga yokkaluñ la dara. <laughs> huit pour cent boo jëndee ñaari kilo ceeb mu jeex. mu jeex waaw. bu ñu la yokkalee dix pour cent muy muy muy sax ñi nga xam ni cadre yi la. Mhm. cent mille franc dix mille lañ la yokkal. Mhm. boo ci duggee ñaari yoon sa oto def ci essence doo yegg. dëgg la donc ah, loolu yëpp baax na c'est des avancées. nangu nan ko ñun. ñun duñu duñu wax lu amul nangu nañu loolu mais xeex bi ni ñu ko war defee. moo ba boo jógee yow da nga ne yow yaay centrale syndicale boo xamee ni nee nga mhm. yow da nga da da nga yaa représentatif mhm. bu fekkee dañu war xeexal travailleur mhm. yow la de nee nga yaa war woo ñëpp tout le ñun ñëpp ñu toog waxtaane ko ku ne jox xalaatam au moins nit ki dina ci gis boppam travailleur bi dina ci gis boppam mais yéen ñeent yéen ay dajale koo daal ak état décider lu leen neex génn ni yéen a gañal yi noonu. loolu mooy problème bi actuellement moo tax mën nañ jàpp ne vraiment syndicalisme actuellement dafa nekk benn acide boo xam ne jàpp nañ ne dafay mel ni luy waaj luy waaj a dee. mais syndicalisation moo am. Mhm. nit ñi bëggatuñu syndicat soo leen waxee. bëggatuñ ko vraiment bëggatuñ ko. Mhm. parce que nee na gisuñu ci seen ay ay ay Guy Marius Sagna ak di xeex. pour pour les travailleurs les activistes. loolu c'est te nga man maa représentatif. Mhm. c'est honteux. parce que léegi nit ñi ci activistes yi politique bi tamit gangréné wu aussi bu baax a baax. non politique bi sax ci centrale syndicale yi man gisuma ko manuma leen euh, kii de politique non non non. Mhm. man xam nga lan. tàyyal nañu lekk nañ ba seen biir fees doyal nañ dugg nañ ci avion yi mm-hmm. ñu ngi baaxante ñu ngi leen di dugal ay ay institution mm-hmm. ñu yor ay 4x4 climatisé di dawal mm-hmm. te ku raf ñu ni dàqale <laughs> madame madame Ndiongo mi ngi mi ngi saa reer parce que temps bi ñu joxoon mi ngi mi ngi jeex dañ lay joxaat kàddu gi bu fekkee da nga am lan nga ci sànniwaat ñu dajale ko ñu doog a tëj. li may sànniwaat daal moo di wax ak travailleur en général. yi nekk ci entreprise yi. wan neen di leen ñun résultat yi xamaguñu ko mais pour man quel que soit l'issue de ces résultats ñun CNTS FC authentique ak cadre unité dañuy continuer di leen xeexal pour wax dëgg yàlla li ñu bëgg ñu ñu am ko loolu moom mën naa ko assuré ndax ñun bu ñu pare bu élection yi pare ba ñu jox ñu résultat définitif yi suñu pare bu leen yaakaar ni dañuy toog bi ñun dañuy delluwaat ci ñoom waxtaanaat ak ñoom gën leen jox confiance parce que ñu ngi découragé depuis deux jours ñu may woo di woo EG Diallo les gens dañu découragé parce que dafa am centrale boo xamee ni xaw ma centrale la xaw ma benn nit boo xam ne dafa génn ay résultats yoo xamee ni. ni moo provisoire résultat boo xam ni nga génn que tampon nekku ca kiiwu ministère nekku ca dara nekk ci ngay wax diw moo jël premier lii la am diw moo jël de lii la am ñuy xëccoo kii di wax du yow man la mais c'est grave. dafa mel ni guerre d'intérêt ci wàllu syndicat non c'est gar bu ñuy def dafa rafetul. Mhm. parce que dañ koy def sur le dos des travailleurs bi nañ leen respecté quand même. dañu mhm. respecté travailleurs loolu mooy loolu mooy dëgg bu ñu leen respecté wul ñun nous respectons les travailleurs. vous respectez les travailleurs donc camarades la lutte continue. ñu la lutte incha allah. ñu ngi bëkkante jeeg ñoom ci terrain bi. merci beaucoup madame Bakhaw Diong moom la ñu dalaloon tey ci émission bi donc waxtaan ak moom ci li nga xam mooy élection de représentativité des mu doon représenté benn benn parti li nga xam ne moom la wax ci li nga xam mooy élection yi nga xam moom la ñu donc y eu des irrégularités am na yoo xam ne am am na aussi des bonnes choses yoo xam aussi moo am mais dans tous les cas comme li ma wax cest dire la lutte continue ñu ngi remercier donc remercier nos téléspectateurs di leen wax dig daje à la prochaine merci beaucoup